wàcc si terrain bi dem fekk jaaskan yi. ah. luy ambition am ci coow li non ambition ah, mooy ah, affaire kii bi nii. waaw. yan ambition la sam combat bi politique wala kii. li ma jàpp mooy du leen bàyyi du ma du ma leen may dara. ma leen may dara. waaw loolu may wax. c'est de bonne guerre li ñuy wax c'est de bonne guerre. kii di. non xam nga euh, kii di xuloo kii di dóor kii di fay. gouvernement bëggoon nañu def ko président assemblée nationale. defuñu ko ko mu ni fii kenn du fi am jàmm. man opposition bi bu nu ñu mën a digérer Aminata Touré mooy sama problème. parce que yi muy wax ñun dañu ko caa jiitu ay problème troisième mandat loolu wax nañ ko mat na léegi cinq ans c'est quoi son problème moom lan lan ak euh, pour victimiser wu ci kanamu Sénégal pour xëy na am benn tour pour ah problème problème personnel ñun nag nañu fexe ba askan wi problème personnel bu mu ñu intéressé moom 2012 ba léegi c'est vrai que militante première heure la xam nañu loolu mais lu tax ba léegi nag après mu jékki-jékki di dox ni muy doxale léegi 12 ans yi jiitu nag moom moom bokkuloon ci gestion bi 12 ans yi jiitu bokkuloon ci ay création créé yi nekku fi ministre nekku fi premier ministre mais honoré wuñ ko ñaata yoon ci biir nguur gi ñu nekk mais bu génnoon. te bool boole ci noppi Aminata Touré mënta dominer géewu opposition bi ci Sénégal parce que ñun jàppee wuñu ko comme opposante dañu ko jàppee ku nekk nguur gi loolu la ñu xam loolu la ñu gis mënta ŋàññi Macky Sall ba mu saf nit ñi yàlla dëgg doo nga la bëgg. assemblée moom non inscrite la fa woote. donc député non inscrite. xanaa tey moom Aminata Touré. attends yow mën nga attends maam. waaw kañ la woon élection euh, législative yi. yàggul du mois de juillet. juillet juillet ci ban ngeen nekk. octobre août septembre octobre ñetti weer. nga jiite listu campagne yu Benno Bokk Yaakaar ñu gagné élection yi dem assemblée nationale nga nekkaat député non inscrit paradoxal intérêt personnel la loolu du ci yóbbaale Sénégalais yi Aminata Touré du génn ci gestion Macky Sall. Hmm. jamais. Aminata Touré nee na wax fa dëgg neex yàlla nekk président ba pare sa njaboot say doom sa jabar sa sa sa sa goro sa umpaañax ñëpp ba ci mindaanu kër ga bëgg yi occuper yenn post de responsabilité yi. loolu ci boppam faw mu dakk fii ci réewum Sénégal mortal combat la woote. c'est la part de quelqu'un moom ba mu nekkee woon ca ca wegu euh, euh, Macky Sall on va dire moom xamoon na ni que ni lii amoon na. waaw xamoon na ko moo tax xeexu ko woon. à l'époque voilà Aminata Touré. tan ba nga xam ne yaa ngi woon ci biir nguur gi Aliou ah. Aliou Sall mi ngi woon caisse de déposer consignation. njabootu rakku rakku kii la euh, Macky Sall te pourtant nee nañ kaas ko woon kooku loolu la bëgg a wax. donc pour pourquoi nga bàyyi ba génn tey bëgg ko kaas en tout cas am na ñu nga xam ne nee nañ nag waroo ko fi kaase. nekk mbokk président boo amee njàng ndax daf laa war a xañ nga am takk tan ndomba tànk. le mérite Aliou Sall préfet yaa ngi fi kenn waxu leen. inspecteur yaa ngi fi kenn tudd leen. Aliou Sall de formation ENA. Mm. France ñëw léegi mérite wul moom lu mu doon. gestion laneen la nomination laneen la bu ko mérite nañu ko fa teg parce que mbokk président la loolu mooy lan. en tout cas fu ñu bàyyi yooyu quoi. proposition loi bi mu def sa assemblée nationale te bëgg koo def moo di njabootuk njiitu réew maanaam président Macky Sall xam naa moom la si euh, visé donc yenn poste yi kenn waru leen koo jox ndax nag dañu koo jigee bu mu ëpp mortal combat la woote waaye nag yéen kaay bi nee na. am na Touré lu ko metti lu lenn lu dul. Euh, Amadou Mame Diop ni nga xam ne moom la ñu tànn ci place am ngir mu jiite assemblée nationale bu fekkoon tey moom la ñu tànn kon coow daam Amadou Mame Diop la président ak saal tànn mu nekk cere ji doo ci du ma ci lekk waaye dinaa ci këpp suuf yéenekaay bi loolu la wax du samay kàddu en tout cas Air Sénégal suspendre na ay yenn ci ay bolom destination euh, ci euh, euh, Afrique centrale en tout cas faiblesse performance financière loolee moo tax wàllum koppar gi jëndee fukk jaayee juróom googee la mënta wéyit tax nag yenn destination ci Afrique daf ko dakkal ñu dem ci kër gii di post kër gi di post yaakaar naa ne fu mu nekk nii ci ay jafe-jafe rek euh, la ñu euh, nemmeeku salaire non payé exploitation à l'arrêt gestion approximative laaj ko góor gi Yacine Boy ñoom fu mu nekk nii ñoom fayeeku seen i salaire sax da leen a retraité pour ñu dem seeni i pension ñu ya ya fay jaare pour ñu fayeeku ko sax ay problème yi neen la Euh, donc ñoom ci boppam da gis ku yor euh, chèque war faa dem retiré ji mu nekk ay problème bi kase comme ñoom liggéeykat yi seen i salaire jotuñu si keneen ku fa yor sab chèque bëgg kaa retiré jàppal ne kon yow yaa ngi ci biir loo donc euh, post mi nga xam ne kërug Sénégal la fu mu nekk nii mi ngi ci sa wi ta daanako nag dee na ba noppi te nag sous perfusion ga mu nekkoon sax fu mu nekk dañ ko dindi dans le coma la dugg fu mu nekk nii. moo programmé la. m programme. ah oui kon nag mi ngi dans kon nag mën nañu ci liñ ko branché rek bàyyi ko mu dee benn yoon te leneen. xam naa peut-être fa la ñu jëm euh, yéenekaay bi euh, dikk na ci yéenekaay bi dikk na ci muezzin bi nga xam ne moom la ñu faat ci anam gu ñaaw euh, ca village bu Ndiéy sa piir imam bi nga xam ne nag imam ak porte-parole bu chef de village ba ak mboolem ñi nga xam ne teg nañ leen ci loxo jàpp leen ne kon fu mu nekk na nga sa nungu siin téye nañu leen en ami naa Sakho présidente bu mouvement Karim président Euh, moom la muy exiger moo di ñu réviser euh, procès bu Karim Meïssa Wade bi nga xam ne nii wala sax dafa jàpp ne révision bu procès bu Karim Meïssa Wade fu mu nekk nii ay génte la ay génte la wax fa dëgg neex yàlla yootu lu nga xam ne ni mënoo koo jot moom la euh, Amina Sakho mi wax présidente bu mouvement Karim président donc moom mouvement Karim président ki ko jiite nii ak Karim Meïssa Wade li mu bëgg bokk ñu xalaat ba Karim Meïssa Wade neen nañu tëggaat procès bi moom Amina nee na lu wax fa dëgg neex loolu ay gént la waaw nañ waxante dëgg rek lu manta lu lu mantane la waaw euh, ñu euh, jàll ci euh, Walfu Quotidien dafa ñëw ba tey ci Aminata Touré proposition de loi bi nga xam ne nii dafay dagg li nga xam ne mooy président bi ak njabootam dugg ci li nga xam ne moo di wala ñu jox leen yenn postes yi la contre-offensive de Mimi Mimi fu mu nekk nii mayu leen dara xeex bi engagé na ko te fas génnew ci dellu ginnaaw Walfu Quotidien foofu la génn le vrai journal dafa ñëw ci Macky peaufine son image waaw fu mu nekk nii nag Euh, ñàngal fu mu nekk nii nekkatul ñàngal sàll waaye fu mu nekk nii neexal sàll ndax foo ko fekk nag euh, ñàngal ga mu daan def gis nga photo bi ñandi sax fu mu nekk euh, sourire bu rafet la andi moom président Macky Sall ndax foo ko daan fekk day fas kanam gi mel ni ku am lu mu mere ku ko mere ku mu mere mais fu mu nekk ni doxalinam gi nga xam ne moom la ñu gis jamono ji président Macky Sall doxatul si dara ñàngal jënd na galaas di dox si jàmm woote jàmm fekk ji askan wi déglu leen en tout cas loolu la ñu gis yéen a kaay bi le vrai journal na fu mu nekk président Macky Sall mi ngi defar image image am. dix ans euh, après. Ah? ans après. dix ans après waaw dix ans après Birame Ndeye euh, nee na. pourquoi nga xaar dix ans après di doog a defar sa image ah te waroon koo mën a njëkk. en tout cas fu mu nekk nii daal ci loolu lay dox Amina ture ba tey ci Vox Populi euh, dafa ñëw ci accélérer li nga xam ne mooy di guerre bi contre Macky kon nag leer na moom li muy dox nii yëpp ngir nag daal ci kaw président Macky Sall la yéen a kaay bi di Vox Populi loolu la présidente bu mouvement Karim président. nee wax fa dëgg neex yàlla faw Karim Meïssa Wade mii ñu wax ko dëgg wala ñëpp ñu koy wax nañu dëggaat procès bi nañ ko wax dëgg loolu mënul ne ay gént la donc Amina Sakho loolu loo xam ne braquage ba nga xam ne moo am sa lingeer nag ñaaw na lool benn jaaykat maanaam a boutique la ñu song benn jaaykat lañ sa faat soq bal mu faatu ñetti jëli ci ay euh, gaañu gaañu koppar bu bari nag euh, daanañ ko yóbbu nañu ko gaañu def mbir ma kon euh, daw nañu commission bi nga xam ne nag euh, euh, seen proposition gannaaw ba ñu wi def nañu ko muy jëm ci wàllum location bi suukar si wàllum wér-gu-yaram bi ak mesures yi nga xam ne ni euh, daanaka jël nañu ko ngir nag askan wi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw wala askan bi ci boppam mën a gis seen bopp ci njëkku cher yi nga xam ne warees nañu ko mën a wàññi te góorgóorlu yi mën cee gis seen bopp le témoin la bataille pour 2024 déjà ouverte Cheikh Kanté moom nag lancé na combat bi combat bu troisième mandat bi moom Cheikh Kanté bu am it Aminata Touré euh, lancé moom it xeex bi jëm ci euh, troisième mandat du fi amee moom Cheikh Kanté moom it soobu na ci waaf na ca géew ba parce que ne jàkkaarloo képp ku bañ troisième euh, candidature wala troisième mandat na Touré ci Sud Quotidien moom ci boppam dugal na këyit gi sa assemblée nationale ngir nag mbirum dynastie daal fay sàll gi euh, nan ñuy doxalee ci nguur gi loolee ci boppam ñu daal di ko fi jëlee dysfonctionnement protection civile fii ci réewum Sénégal nee nañu nag dañu seetlu nguur gi ci boppam moom dafay ñëw médecin après la mort tabax bi day daanu ba noppi wala accident am ba noppi nit ñi faatu si mu doog a dikk Ibou Sane professeur la sociologiste politique sa université Gaston Berger bu Ndar nee na dafa mel ni kon état na muy doxalee dafa mel ni askan wi jafe-jafe yi ñuy dund wala problème yi nga xam ne ñu ngi koy dund seen bu kaaraange intéressé wu ko en tout cas loolu la ñu gis ci ak doxalinam. source A dafa euh, ñëw ci éliment Dia mi nga xam ne moom la ñu fàtt ci braquage ba moon foofee nga wax ñu wax ko sànq sa Linguère moom du ñàkk mooy borom boutique ba. Euh, benn euh, boutique la ñu song euh, daal di soxbal borom boutique boobu daa ko fa ñàkk bakkanam moo di Limane Dia am na ñu nga xam ne jël nañ si ay gaañu gaañu ñett gaañu daw nañu mu ngi xewee sa Jagali village la bu nekk foofee sa Linguère Sonko Karim Meïssa Wade projet Morne bu création d'une coalition regroupant PUR Taxawu PDS PASTEF projet boobu tax jotul woon juddu donc nag moom yaakaar naa ne nanu fa nu ko doon toggee fa la yem Euh, la ko waral na Karim Meïssa Wade moom dafa sàkk woon euh, quatre membres fondateurs yi ñu am ku si nekk benn euh, droit de veto loolu nga xam ne dana tax ñu mën a s'opposer ci adhésion bu mouvement wala parti qui ferait la demande loolu Karim Meïssa Wade xam na ko te nag Karim Meïssa Wade moom bëggul woon sax Aïda Mbodj ak Cheikh Tidiane Dièye bokk ci grande coalition boobee xam lu ko waral nag xam lu waral Ousmane Sonko moom dana ko mukk loolu du fi am. loolu wax fa dëgg neex fekkee loolu nga bëgg ñu taxaw benn coalition bu mag Aïda Mbodj du si bokk Cheikh Tidiane Dièye du si bokk la ngeen jote lijjanti leen ko ailleurs waaye du ci biir coalition bi daxal fa wi moom Karim euh, Ousmane Sonko loolu la too tontu kii di euh, Karim sa Wade réew mi quotidien dafa euh, ñëw ci mag yi est-il pris en otage jëm ci troisième candidature bi en otage ou pas jàppale ne kon euh, kii am na Touré nee du ko may dara troisième mandat du fi amee fii ci réewum Sénégal te nag euh, nekk président ba noppi nag jël poste yu saf suukar yi jox ko euh, say mbokk loolee ci boppam dootu fi amati ndax proposition de loi la bëgg a dugal sa assemblée nationale Aminata Touré mi mi accélère la cadence ah kay moom moo ko wote woon moom la ñu gis ci le ja fu mu nekk nii diggante Benno ax nag am na ture yaakaar naa ne sëy bi tas na xanaa ku nekk gàddu say bagage dem rek moo ci des donte ñu ngi ci kër gi ba léegi waaye ku nekk tas na euh, ber nañu seen i njël Amina Touré ber na jërëm waa Benno ber nañu seen jër donc doxalin gi si accéléré na cadence gi fës yéen a jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy euh, président Macky am na Touré si loolu lay dox jamono jii le mandat foofu la génne loi limitant l' exercice de fonction ak lu lépp lu soxal nag wàllum euh, liens familiaux yi Mimi Touré dafa mel ni ci loolu lay dox ngir xeex ko l'observateur dafa ñëw ci loyer ak hausse de plus de 38 pour cent ak yokkute am na si de ci njëgal location bi tey la gën a cher nag fii ci réewum Sénégal donte nag nee nañu dañuy solution ndax dana am solution am déet lu mu ci manti doon cher na lool nag yéenekaay bi euh, euh, dikk na ci euh, ñu jàll ci libération deux morts après l'explosion donc d'une turbine Euh, usine structure euh, en acier loolee sa jam ñaajo la xam nga ne usine ñebbe euh, moo amoon ña sa ña sa faatoon bii nag sa jam ñaajo la ok beneen explosion ñaar ñoo si ñàkk seen ak seen ak bakken ñu ñu ñu ñu ñu ñu dikk ci loolu ñu jàll ci les échos dafa ñëw ci rapport troisième trimestre ba nga xam ne commission bu données personnelles def na ko SETER Sonatel Total Énergie ak brioche doore dañ leen épinglé ndax diffusion de données personnelles Amina Touré ba tey euh, dikk na ci euh, yéenekaay bi ñu euh, jeexalee ah, yaakaar naa ne 59 jot na Mimi veut Mimi veu une loi bu nga xam ne ni anti préférence familiale lay doon maanaam nekk président jël mbir ya jox ko sa sa sa sa mbokk loolee ci boppam la bëgg mu dakk loi boobee la bés bi jour yéenekaay dikk Air Sénégal bés bi yéenekaay dikk na ci ak nag jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel alerte dafa ñëw ci ah, Ndiassane Ndiassane nga nga xam ne yaakaar naa ne moom mooy euh, ngéntewaat bi wala sax ngénte li euh, gàmmuwaat 139e édition bu gàmmu annuel bu Ndiassane ñu daal di koy tuddee euh, Habib Niang foofee waa Ndiassane da dañoo gis ne social sa dox foofee sa Thiès day dimbali askan wa donc l'évidence alerte foofu la génn yaas ñu dem ci Odia Odia dafa ñëw ci am Amina Touré ba nga xam ne privilège yeex ñoom seen gis nga gaañaa nga bëgg a jël ascenseur bi. politicien aussi il faut ñu bàyyi seen caaxaan yi. gis nga moom lu toll moom lu du rasu nga naan parrain désigné. kan la ñu mhm. kan kan kan la ñu désigné comme comme parrain ci ay. waa Ndiassane moom lu du rasu. waa Ndiassane gàmmu nga xam ba mu existé booba rek ñun judduwuñu. il mhm. faut arrêter quand même. waa Ndiassane nee na Habib Niang moom la ñu ko politiser quoi di caaxaane nit yi ak suñu diine ji. waa Ndiassane uyu euh, leen kii di El Hadj Maodo. defu ñu lool loolu de. c'est que titre bi ak yi moo moo kiiwul. moo ànd ça ne rime pas woowal porte-parole Ndiassane nga xool. amuñu benn parrain désigné ñooñu benn parrain bi ñu am mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. en tout mooy borom ngénte mooy seen parrain. privilège yi si Odia. apparemment yi. daal di daal di na ciy ñëw. ak nag Aminata Touré ba nga xam ne bañ na président Macky Sall ak nag Gorom gis nañ di jaay ji ñoom ñu ngi ran pour bëgg a yegg sa ascenseur mu ne leen mukk di ci dal ndax nag la muy bañ moo di nekk président bu noppi jël ci say mbokk daal di leen teg fa nga xam ne nii mooy fu neex fa fu mbaxus gi loolu ci boppam la bëgg mu dàkk Aminata Touré ak euh, ay mbiram Odia foofu la génne ma jàkkite tey jii si yéene kaay bi kon nag El Hadj mu ngi titre jox naa la ko ah, ah kon jotoo koo gis mu ko yéex a gis <laughs> Zik FM Sen TV juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum lii gën a fees ci bopp xibaar yi ci jagal yi benn dëkk la bu ne la ci diwaanu Linguère ay Samba booye fa song benn boutique.